asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateur 2STV yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam maa ngi jiital ci sama nuyoo Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général kullu murit di ko ñaanal san borom tabaraka wa taala yàggal ko fi te wéral ko kàttanal ko dëgëral ko jiital ko ci lislaam jullit ñëpp ak murit yëpp nangul ko te muy seen njariñu tey ak ëllëg hmm. maa ngi soññe itam ci liggéey bi nga xam ne moom la teg ci kanamam te saa su ne mu di ko yittewoo di ca wane ak pëstéef ak bëgg ak bëgg ñëpp ànd koog moom te mooy complexe islamique bii maa ngi koy fàttali képp koo xam ne bëgg nga lu baax na nga fexe ba tàbbal sa alal ci liggéey bu kawe boobu nga xam ne ñaan nañu yàlla sëriñ bi ubbil ko boppam ay génération yi génération yoo xam ne ay promotion yu kawe lañuy doon ci wàllu xam-xam génnee fa ci kanamam te yàlla def ñuy jariñ umma islamique bi yëpp jariñ àddina bi yëpp maa ngi ñaanal waa réew mi ñëpp jàmm maa ngi ndokkeel jullit ñëpp ak murid yëpp ci weeru safar wu tedd wii ñu nekk di am mbégte nag dalal gan gu tedd goo xam ne tey jii man ak Pape Sidi Fall ñoo ko daan séq waaye moom it mu am lu ko tënk tey ci wàllu liggéey mu nekk loo xam ne ci farta yi kër gi la bokk ma wuutu ko fi nag tey dalal sëñ Ahmadou Mbacké mu daarul Muxti di soppe ñëpp di xaritu ñëpp di ku sopp xam-xam di ku sopp borom Touba di ku sopp di jàngale di jariñe moo tax ñun saa su ne dañuy woo dalal ko fi tey moom mën xam naa ne téléspectateurs yi dégg nañu lool ndax biñu annoncer rek ne sëñ Ahmadou la dalal gis na bu baax réaction yi nga xam mom la def ci biir réseaux sociaux yi ak sunu support de communication yépp kon sëñ Ahmad ma ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare Mbàkke Balla waaleykum assalam wa rahmatullah sëñ Mourid sadef ma ngi lay ziyaar bu baax di la ndokkel di la euh, sante bu baax itam ci taxaway yu rafet yi nga xam ne ngi koy taxaw ci waajal magal touba gi mm-hmm. ak xamal murid yi mm-hmm. anam gi gën ci magal ak euh, fàttali leen itam jeexite sëriñ bi ak sëriñ bi ak i doxinam ak i meloom ak i jikkoom ak euh, yoonam wu sell wa ñoo ngi ñaan yàlla nangu liggéey bi yëpp te boole nu ko boole na ci fay nun ñëpp ak mbokki jullit yëpp daraje sëriñ bi noo ngi noo ngi fàttali ne mbooloo mi nga xam ne ci la sëñ Ahmadou mii di yëngu ci wàllu xam-xam muy Rawdu Rayaahin te sëriñ Ahmadou Mbacke Badawi mu sëriñ Fallilou jiite ko sëriñ bi ci boppam moo ñu wax ci ñam ni tànn gi ñu leen tànn ànd ak ñoom liggéey bii ju kawe la mi ngi ñaanit ñu am ci ngatandu sëriñ kon li am nañu ci ndigal bu wóor a wóor waaye xam nañ itam ni ku baax ci lim bëgg ñu wax ko jullit ñi wax ko murit yi lamb nañu ba daj barab bi nga xam ni foofu la ko denc tey nag tem bi ñu leen tànnal mooy tem jàpp naa sax ne bi gën a rëy ndax Serigne Touba amul lu dul boroomam boolewul boroomam ak dara gisul lu dul boroomam yëngoom ak dalam lépp da ko jagleel boroomam ni ko du Mouhamadou Mountakha di waxee biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis lépp ci boroomam rek la ne kon loolu bu fekkee moom lañu ñu bëgg a waxtaanee Euh, waxtaan la boo xam ne yaakaar naa ne waxtaan boo boo xam ne ci xaalam lañ toll dëgg dëgg dëgg ndax boroomam lay sant mm. ci xéewal yi ko boroomam def defal ni ko boroomam melal lim ko defal ak it ñun ñii nga xam ne moonu booleeg moom tawféexi ju ñu amee ci diggante boobu kon euh, ab diggante ñaar a koy séq mm. sëñ Axma li ñu lay jëkk a laaj mhm. mooy kookii sëriñ Touba di wax mooy boroomam mhm. kookii la ñu bëgg nun nga présenté ñu ko présentation bi nga xam ne mhm. ki gën a gàtt xam-xam ci ñun dana ko mën a jàpp te dana doon mel na ni téereb tawxiid bu rëy ci moom jërëjëf sëñ Mouride euh, sëriñ bu mag bi ni nga ko waxe sunu te tabaaraka wa taala moom la jàppe woon ne mooy buuram mooy boroomam moom la bëggoon moom la doon dàkk moom la doon wut moom la doon xeeñtu ci lépp bëggug suñu boroom rek ci la mas di ne moom la doon jéem a xam itam cofeelam itam gi gën a rëy mooy bëgg gi bëgg yàlla dana sax mu giñ ci suñu borom mhm. ne giñ naa ci yàlla ne mhm. suñu borom laa gën a bëgg ci lépp lu may moom yamiinu rabbiya inna rabbiya ahab lii min siwaahu wan nabi baadul ahab mais ginnaaw lu bu suñu borom mhm. ginnaaw suñ borom nag mhm. rasulullahi laa gën a sopp ci mbindeef waaye suñu borom moom la gënoon a bëgg suñu borom moomu nag mhm. buñ ko doon xamle moom mooy ki gën a fës gën a leer gën a wér te mooy yàlla mi nga xam ne moo sàkk lépp nga xam ne moom sëñ Tuubaa dara wax ne tawxiid iman dëgg-dëgg mooy nga xam ne ku may suñ boroom rek suñ borom a ko sàkk lu dul suñ borom suñ borom a ko sàkk mooy buur bu bari kattan boobu yi nga xam ne tëmbalewul fenn yemul fen léppi kattan ci moom la daje léppi xam-xam ci moom la daje léppi man-man ci moom la daje wax nañu melal nañu boom ci alxuraanu karim qul huwa allahu ahad benn buur la itam amul ñaar amul ñett amul doom amul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 subhaanallahi amma yushrikuna mooy buur bi nga xam ne dara ump ko borom yërmaane nag ju bare bare bare bare joo xam ni xajoo na lépp itam waaye di ko sell tur yu baax yu kawe yu sell yëpp it moo ko moom kookee nag mooy yàlla mi nga xam ne moo sàkk lépp nga xam ne doomu aadama biñ nekkee ci kaw suuf ba léegi waxtu ne ñi ngi koy xam dëkk boo dugg mën naa bañ am ab jàngukaay ci njëlbeen nga mën naa bañ a am yu bëree bari waaye ab jaamukaay yàlla moom dana fa am xeet yëpp a ko xam ne xeet wu ne wutal nga koo tur waaw noonu yàlla lañ koy wax <laughs> arab yi allahu lañ koy wax séeréer am na nuñ ko fi waxee roog seen tubaab yi am na nuñ koy wax mm-hmm. anglais am na nuñ koy wax mm-hmm. xeet woo dugg xam nañ ko mm-hmm. kookoy mooy yàlla mi nga xam ne الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بقول في هناك بني واخ دي غنتي ماك سيرن بي دا فام نيو رباني رباني الاعظم موي تورو تامبي رباني ناك موي كيغا خامني دا فيتيك سون بوروم تي بڬ كو اك جيغن جيغن لوكو اك ساكو غرمم اك جيم كو خام ba mujj nag seeyal léppam ci suñu borom mhm. mooy ak bëggam mu seeral ko ci bëggu suñu borom mhm. ba amatu bëgg lu may lu yàlla bëgg rek mhm. mel ne weñ gu ñuul gii nga gis nga xam ne ak weñ la bu ñuul kukk waaye boo ko jegalee xal yi di ko jegalee ak moom mën naa mujj di xonq ba mujj mel ne xal nga xam ne doo ko mën a xàmme xal yi donte nag moom ku ne xam ne ne xal la moom loolu yi mooy rabbaniya sëriñ bu mag bi nag ni mu ko dunde loolu mooy doon waxtaan wi incha allahu taala nu fas ko yéene def ci ñeenti xaaj bu ko waxtu wi mayee bu njëkk bi mooy ni mu wéetale suñu borom tawxiid ni mu ko dunde ñaareel bi mooy ibaada te mooy ibaada xam nga li cër yi def loolu lañ tuddee ibaada waaye li xol bay def loolu ubodiya lañ koy wax ak ubodatu ñett yooyu itam lu ci ne am na nu ko sëñ bi dunde waaye ba ci topp mooy bëgg gi mu bëgg suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne dañ ko ko mooñaale ni ko sëñ Bachir waxee waaye ba ci toppit mooy li ko suñ borom faye nag am suñ borom wax na ne boo doxee dégg nga di wut si ma ma daw maanaam maanaam man ma daw gàttanu la man ataani yem si ataytuhu hërwa la booy dox di ma wut si damay daw gàttanu la man gàttanu googu ko suñ borom gàttanu nag ak lam ko gàttandoo loole itam moom la ñuy mujjee insha allah suñ kem kattan bari na bari na lu lu sëriñ Muntaxa di wax hmm. euh, di tudd baatu ngatandu boobu hmm. ñu ngi fàttaliku tam ni am na atam sëriñ Saliou wax fii ci jullikaay bi ne àddina dëddu na ma hmm. ngay wéy ndeysaan yàlla nag lu jege la ndeysaan te day gàttandu ndeysaan kon euh, ban jaam moo war a jëm ci boroomam ak bu ca jëmee lan la jëkk a ittewoo maanaam euh, tawxiid hmm. bi ngay bi ngay bi ngay wax ni moom la sëriñ bi am diggam boromam ndax euh, dëgg la tur yi bari na hmm. xeet wu ne yàlla def na ci ñoom ñu yëg ne am na ku leen bind am na nuñ ko tuddee hmm. waaye nag moom am na nu mu présenté boppam am na it nu mu bëgg ku ko ni jàppee waaw ndax loolu la day am man nga maa jéem a làmbatu waaye am na koo xam ne xam na ni may jàppee te xam-xam mooy mën a maye loolu kon mel na ni ci wàllu xam-xam am na jàppin wóor woo xam ne sëriñ bi jàpp na ko boroomam ci noonu tawxiid boobu lañu bëgg nga présenté ñu ko waaye nag ñëw ak ñun itam ci jëf jëf ji nga xam ne gannaaw ba mu jàppee na mu war a jàppee bu jógee dàkki bëggam nan la koy nan la koy jëfee mm. xol bi itam dinañu bëgg a xam nan la daa jëfe moom it mm. ak lan la xol bi daan gis yëg sunu boroom mm. yëg ne lii ci boroomam la bàyyi ko ak loolu it naka la ko daan nan la ko daan dikkee mm. jërëjëf sëñ sëñ Mouride mm-hmm. eh, sëriñ bu mag bi mën nañ ne bu ñuy wax tawxiid mm-hmm. ak moomee la ma mm-hmm. moom ci wax na ko sax nee na tawxiid moom maa ko moom loolu am na fu mu wax ne eh, mallakani tawxiida rabbil ahadu maanaam suñu borom moo ko moom loo tawxiid nga xam ne ak moom élément ba tax na dundam gépp ci biir wéetal suñu borom la ko la ko dund sëriñ mag bi danaa wax ne suñu borom a ko terale ngëm ngëm yàlla gu dëgër loolu mu tawfeex la joo xam ne suñu borom moo ko defal naka jekk ba mu feeñee rek la feeñ ci biir njaboot goo xam ne njabootu gu gëm yàlla lañ gu koy gu koy jox xaqam lañ mu yaru ci loolu màgg ci jang ci ba am ci tawfiq ji nga xamne mom la ci am wax na ne sunu borom ci moom moo ko sax moo ko sa tawxid wax na laqanani laqanani allah la da'idahu tawhid la ilaha illa allah sun borom moko sa tawxid ba mu ci géej ga ci lako sanak deug deug tawhid dëgg tawxid eh, wax na ne itam ne tawxid mooy wax na ne dini ya tawhid ilahi nnaasi bi sunnatil mahi eh, min al unasi واخنا تي واخنا تي واخنا كو تي ديني توحيد الهي باتباع من قادني واخنا بري بري دينيم توحيد لا موي ويتال سونو بوروم تبارك وتعالى واخنا يتام ني موم ليمي فاغو تي ادنا لا تي اوب سولو موي ويتال سونو بوروم كسبيه توحيد الهي الجليل Eh, loolu wax na ko wax ne sax ne ngànnaay li muy xeexe weesuwul wéetal suñu borom tabaaraka wa taala wax na ne sayfi alladi yafri tula man sallathu tawxiduhu fa huwa al ilahu alwaxidu nee na ji nga xam ne moom lay xeexe ngànnaay mooy wéetal suñu borom tabaaraka wa taala nga xam ne moom suñu borom da ko gindi jubbanti ko tërbiye ko lépp mu jaare ko ci tawxid moo li mu wax ne hadaniyal ahadu bi tawxidi kon tawxiid moom mbirum sëñ Tuubaa la moom sëñ wax ne sama xol maanaam tawxiid da ko fees ba lu dul tawxiid mënatu cee dugg lam yanxu qalbi gayru tawxiidil malik kon jëmmi tawxiid moom mën nañ ne mooy moomeelu sëriñ bi la nga xam ne séq ko kenn gis nga mbindam laa ilaha illallah da cee bari xasida yi foo dugg rek laa ilaha illallah yaa xam laa ilaha illallah suñu borom jox na ma ko dégg nga daw iya maanaam sa day wax ne laa ilaaha illa mooy sama leer mhm. gi may nuut niitoo bokk daw iya laa ilaha illa allaahu muhammadun arsalahu al ilahu di jëmm joo xam ni eh, waxtu ne dara xiir maanaam tawxiid moom am na am na ay ay ay déggin ak mhm. njàngin ni nga ko ni nga ko junjee mhm. waaye loolu buñ ci duggee day gën a gudd jàngal nanu tawxiidu ahli sunna wal jamaa bi ñuy askan al imam abul hasan ashari nga xam ne moom daa yeesal la fi yonent bi bàyyi woon sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw mi yi borom xam-xam yi mag yëpp ànd ci ñu ñeneen ñi ci ànd ma maanaam lu mel ne maturidi xam nga dëppoon ak ñoom ahlul athar it am nañ wuuteeg ñoom mm-hmm. ñu tudd ahlul hadis léeg-léeg mm-hmm. ñenn ci ñoom mm-hmm. mooy xanaabila yi mm-hmm. am na lu ñu wut ak ñoom waaye bëriwut mm-hmm. nga xam daal mën nañ ne daal mooy tawxiid bi nga xam ne ci la jullit ñëpp ne rek li ëpp ci jullit ñi ndax saafiin mm-hmm. yëpp ci lañ ne maliki yëpp ci ne axnaaf yëpp ci ne ndax maturidi ak ak ak ashari benn lañ li ñu wuute ay ay baat lay doon fukki baat fukki mbir ak ñett rek la ñu loo xam ne masalan ci ma kii day tudde mbir mi ixtiyaar kee tudde ko kasbu am na ko ko boole ci benn téere wax maanaam loolu wuuteeg baat rek la hmm. moo tax yooyu amul solo loolu nag sëñ bi jàngal na ko waaye jàngal na itam tawxiidul aarifina billahi hmm. te mooy nit yàlla hmm. ñoom dañoo yëmul ci tawxiid bii nga xam ne ay la ak i wax yuñ lay jàngal di la ko di la ko xamal di ko sax dañ koy dund ba mos nag caf kak tawxid loolu it jàngal na ko dafa am lu ñuy wax tudda moo dam nañ tawxidul aarifina billahi ñaar yooyu nag buñ ci bëggoon a dugg day gën a dugg day gën a kii waaye waaye mën nañoo gën a yem rek ci jëmmi sëñ bi maanaam ni mu feese dell ak tawxid ni mu màggale suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne fi ne bi muy wax murit bi lim njëkk a war a xam da caa wax ne li jiitu ci li nga war a xam lu mooy ni nga ni ngay def ba suñu borom màgg ci sa xol awaluha maarifatun mm-hmm. bi adama daatil jalili mm-hmm. daatuhu muadama suñu borom màgg ci sa ni ngay def ba suñu borom ba suñu borom maa neen loolu mooy xam-xam bi war a jiitu ci ci ci ci ci am murit mësta nongu nag mm-hmm. ku boolee suñu borom ak dara moom man suñ tubaab mooy koo xam ne moom moom ci moom dara wax ne uwaxidullaha wa lastu ushriku shay'an bihi xiina siwa yushriku maanaam damay wéetal suñu borom te du ma ko booleeg dara mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy wax nekkoon ci wetam mm-hmm. nekk ci géej gi di wax yàlla ñaar ak ñett loolu da ko metti woon fi ne mm-hmm. gis nañ eh, tontu na leen ba tàyyi fal taabudu rabbakum wal tatrukul adada mm-hmm. maanaam jaamu leen seen yàlla waaye nag lim bi ñaar ak ñett loolu moom moom mënu ma ma leen ko <laughs> mi ngoog mi ngoog nga xam ne leen ba tey mm-hmm. lim bi moom mm-hmm. dama bëgg ngeen teg ko fi suuf te xam ne suñ borom moom benn buur la boo xam ni du ñaar du ñett waaw allahu jalla ilahun la nadira lahu qataan wa man bisiwa za ja qad fanada maa ngi gis ne xasida gum tënk laa ilaha illa nga xam ne wax na ci ba tey ca mujj ga nag la leen wax ne ilahuna ya nasara jalla an mathalin tuubu lahu watruku taslisa wal awada bàyyi leen lim bi dégg nga am na beneen fal taabudu rabbakum wal tatrukul adada jaamu leen seen yàlla waaye nag bi bàyyi leen ko dégg nga lahul baraya lahul afaalu jumlatuha bil mulki walhamdu fi daani kon jëmmi tawxid maanaam noonu la demoon ci sëriñ bi nga xam ne sëriñ moom mës a nangu ku boole suñu borom ak dara dina wax ne kenn rek lañu gis sëñ bi diko molu moy kuy bolé yàlla ak dara gis nga day wax ne uffin li qawmin salla ya ahad manam bas bas ak ko xamni dal day wax ne day way bolé suñ borom ak lenen xam na feneen fu wax ne sax ne ta'than liman ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جحد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد tabban lahu tabban lahu uffin lahu waylun lahu waylun lahu tabban lahu xanaa gis nga moolu yooyu mhm. tabban lahu mhm. tabban lahu mhm. uffin lahu waylun lahu waylun lahu tabban lahu yooyu yëpp ko boole mu ay moolu yoo xam da koy moolu ki nga xam ne day boole suñ borom ak dara dig leen itam mbugal ak metit lu ne mu ne waylun wa niqmatun wa dayqun wa dalaa li kaafirin wa balaa li kaafirin wa mushrikin lan yuqbala waaw nga xam ne musula Euh, bëgg ku boole sunu borom ak dara waaw nga xam ne danaa wax sax ne maanaam kii boole sunu borom ak dara kooku daa daa xamut li xew waaw yaqiiniyal yaqiinu an usrika bi euh, euh, waaw yaqiiniyal yaqiinu an usrika bi lii xanaa fa kullu mushrikin lam yu lam yantabi. waaw mm-hmm. ah, loolu loolu lii da nga da nga ciy gisee mu shirk ni mu bonee de. waaw shirk moom. waaw moom waaw yaqiin yel yaqiinu an ushrika bi. Mm-hmm. shay'an fa kullu mushrikin lam yantabi. voilà mm-hmm. nga xam ne tey wax nee na sama yaqin ci moom moo dox sama digganteeg may boole suñu borom ak leen ma shirk la yox sax mooy boole maanaam jàpp ne beneen buur am na bu ma yàlla. Ah, lool nak bu ko tak yu sew sewaan yi nga xamne hmm. ay mbir la yu dagan hmm. dug ci buntu fiq hmm. ñu di bëgg duggal ci ki ngir genn nit ñi ci diine ji lool ay caaxaan doom yoo xam ne bukkut ak lii sëñ bi wax mom manam shirku buñ ko waxe moy japp ne benen bur amna bu may nga manam loolu moy moy moy moy sirk di lim di lim mo xam ben ñaari bur ñett manam bur ben la mi nga wax allahu jalla ahadun allahu asamadu alladi huwa loolu la sëñ kenn la benn buur la du ñaar du ñett kon loolu mooy gàttalu maanaam tawxiidu tawxiid ak ni ko sëñ bi fonke woon gën jaa lim ci bind mat na téeméeri téere ci tawxiid waaw ndax ñaar fukki téere xam-xamam bind na ko ci mhm. xasida yi nga ne xasida la itam mhm. am na mbokk mu ci wàññi mhm. loxo wa jege dégg nga juróom-ñett fukk daanaka juróom-ñaar fukk ak naa nga xam ne téeméeri téere daal bind na ko si ci tawxiid yoo xam ne yëpp mënees na ko mënees mhm. yëpp mënees na maanaam maanaam ñaar fukki téere yii mhm. nga xam ne téere xam-xam la mhm. euh, daayiratu étudiants euh, yi nekk Maroc mool nañ ko moom ba mu ngi tege bu nag euh, xasida yee itam seen jiili moom sëñ Cheikh May mhm. moom it dajale na ko mhm. nga xam ne lépp mën nga ca teg bët bokkut ak ya nga xam ne xamuñu ko moom mhm. kon loolu mooy gàttalu tawxiid eh, diggam ak sëriñ bi waaw eh, tawxiid jooju nag <coughs> mel na ni eh, xam-xam bi li ci jëkk a feeñ mooy li nga wax ne borom Tuubaa dafa ne sunu borom da ko moomale tawxiid te mel na ni yi yàlla bañ yépp daa dajaloo ci bokkaale ah. fa la tàmbalee hmm. mooy seen ndey waaye fa lay rogalaate jëm ci hmm. bépp jëf boo xam ne yàlla gërëmu ko hmm. kon euh, mel na ni sëñ bi moom suñ borom jox na ko sange soo xam ne jox na ko kaaraange goo xam ne xëy na ku ku mu neex nga tuddee ko tawxit kon waaye nag naka la ko jëfee ak naka la ko naka la ko feeñalee ci mbindam ci diggam ak boroomam waaw kon loolu tawxit moo nañ ci lu bare bare bari Eh, waaye mhm. ngir waxtu wi njëkkante waxtu wi mhm. dañuy ñëw ci ñaareel tom bi te mooy mhm. jaamu yàlla gene ni ko sun ni suñ borom jaamoo ni sëriñ bi jaamoo suñ borom tabaraka wa taala sëriñ bi xeeti jaamu yàlla yëpp da ko dund ci anam nga gën a kawe nga gën a yaatu da njëkk mooy ibaada mooy jëfi kaw yi loolee da koo dund mën nañ ne dundam gépp sax day jëmmal li mu wax ne iyyaka na'budu wa nastainu fa innaka al maabudu wal muinu diggante bu mosu koo génn mm-hmm. ma jaamu suñu borom mm-hmm. te bàyyee ko boppam te doyloo ko mm-hmm. te wakkiirlu ci moom te eh, mosula mosula mosula nangoo féeteeg keneen ku may moom waaw danaa wax sax ne walastu abudu dawaaman gayraka an dama dul jaamu keneen ku may suñu borom moom loolu moom daana wax sax ne jaamu yàlla mooy sama diine hmm. ni mu ko waxee ne tawxid mooy sama diine wax na ne bëgg yàlla mooy sama diine hmm. wax na ne jaamu yàlla itam mooy sama diine diini ya ibadatu ilahi naasi waaye dalaa wax ne itam léppam moo maase di jaamu yàlla hmm. kulliyati abidatun lillahi an léppam daa maase di jaamu sun borom tabaraka wa taala maanaam ay yëngutoom ak ak dalam ak léeg-léeg mu ne naw mi ka awraadin kitaabatuna ak lii xalaalan yaqi kulli musibaati maanaam ne nelaw yeeg lépp maanaam ci biir ak jaamu yàlla la doon suñ suñ mag bi mooy koo xam ni mm-hmm. nekk na ci kaw suuf bañ noppi koo gis mm-hmm. mësula euh, julli ci ludul ak laab mm-hmm. mësula tiim lu may ñaari yoon te bu ci ne maanaam bu ci ne tiim lu may benn yoon bokk benn yoon la mas a tiim ci dundam te julli gune da koy jàppal mësula julli ñaari julli ci menn jàpp musulu Juli nyari Juli ci mel na njàpp dara wax ne man du ma ay du seli diine du seli aada sëñ Basiru nee mu ne diine moy, menn njàpp nga julli ci ñaari farata mom mhm. julli gune farata june ak njàppul boppam mooy ko xam ne itam musulu julli sax ci digg waxtu wi njël benn waxtu la daa dulli la daa julli am na sëñ ben naru ganana bu mu waxtu wi daa jot rek sëñ bi jóg tàmbalee bëgg a julli mhm. ne mu ne ko te nga xaar ba ci digg waxtu wi ndax tàngoor ak yooyu mu ne ko man damaa bëgg fu suñu borom diglee rek ma defee ko foofee waa ne mos ta nangoo julli mhm. ci mujjug waxtu fi ne mhm. mooy jëmm joo xam ne itam daa dëkke woon koor daa dëkke woon koor te ak doogam amul solo moom ak lekkam ci moom amul solo fi ak lekkam amul solo te itam noonu la bare woon ay naafila fi ne tey gis nañ maanaam ginnaaw timis sëñ Basiru ne daana julli ñaar ñaar rakkaa yoo xam ne mhm. Baqara ak Ali Imran la ci tari dañ xool ñi mu yar rek mhm. sëñ Mamadou Diarra gis nga guddi gu ne téeméer rakkaa la daa julli goo xam ne boo xam ne lam cay alxuraan jëpp la ci tari ba mu jeex sëñ Daam Abdourahmane Lo alxuraan jëpp la daa naafila ci guddi gu ne mhm. ci ñaar rakkaa waaw sëñ Moussa mi gis naa ci téeréem al umda mu wax ne sëñ Modou Xayri Jaxate wax na ne am satu jaxate wax na ne mam Cheikh rafal mhm. alquran jep la da na fi la ci fukki rakka ene ñooñu moy ñi sëñ bi yar mhm. sëñ bi nag moo leen ci yar fi ne tey sëñ da na wax ne manam mhm. nelaw guddii lolu ginaawam lañ ko xam gan la ci yoon gan la ci yoon wi <laughs> ndax waxtu ne mën la wo té du la wo ngay biin biini di ak ak ak wane ay nelaw motax tax bi motax ngoog bi moy jëm jo xani musta mësta juyoog ndigalul suñu borom waxna ne lam yataraddad kalkali lam yamil jismi ila ma'siyati waaw walam amil mës la def lu naqari suñu borom tabaraka wa taala mës ta mm-hmm. eh, jàng jëm ci lenn lu naqari suñu borom tabaraka wa taala mm-hmm. loolu mooy genn wet gi mooy jëfi cër yi waaye xol bi itam yëg-yëgi xol yooyu moom moo gën a naqaree mm-hmm. da nga leeral ak génne bam ba mu fës xol de daa moom boppam waaw xol daa moom boppam waaye mas na koo xamee ci lenn ci misaal sëñ bi Euh, ubudiyam mhm. mooy yitteem jëpp moo doon nekk abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ubudiya mooy ubudiya mooy mooy mooy yëg-yëgi yi yëg yàlla ci xol mhm. maanaam yëg njaam gi ak bëgg yàlla ak mhm. dund ko sa di la ci aju nag ca suñu borom ca diggante suñu borom la ñu tudd ubodiya moo gën a xóot moo ubodatu boog moo gën a xóot moo gën a xóot la ko yenn borom xam yi xam le waaye ci misaal ñaan na ba tey suñu borom jàppe ko abdullahi mm-hmm. abdullahi yombut mm-hmm. fi ne abdul razaq bari na mm-hmm. jaamub yàlla miy joxe wërsëg jaamub yàlla miy joxe dégg nga daraja jaamub yàlla miy joxe am koom jaamub yàlla miy maye ak mi yor nag miy jéggale mi yor ajana ak mi yor mi yor sawara nga xam ne tey jaamu gi daa waaw <laughs> te fi ne yow mën nga tudd neneen mën ngaa jàpp ne leen waaye fi ne ci dëgg-dëgg yow fi maanaam yàlla mi joxe aj mi mi mi mi yor ajjana rek ngay hmm. jaamu ndax yow ajjana hmm. tey bu suñu borom ne woon amul dootoo jaamooti moom moo tax ngay jëf hmm. waaw wala waaye léegi buntu yooyu abdullahi nag allahu nag mooy tur wi boole tur yëpp nga xam ne mooy jëmmi suñu borom ja nga xam ne maanaam maanaam boo maanaam xam nga razaq mooy ki yor wërsëg intérêt nga xam ne bu du woon kuy sàkk wërsëg mën nañu bañ a xam tur woowu dëgg la Ah, turu jëmm ji dëgg dëgg nag mhm. mooy allah abdullahi moo tax kooku ci alxuraan kenn la ko suñu borom tudde wa innahu lamma qaama abdullahi mhm. mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sayidna isa kookee nga xam ne da nga koy jaamu hmm. te intérêt bi yëpp mooy jaamu ko waaw suñ tubaab nag mooy koo xam da doon jaamu jaamu koo xam ne hmm. yàlla kese kese moo tax maanaam dëkku ci woon leneen hmm. te loolu dana gën a leer ci ci ci kanam lu dul ñu nangul koog njaam gi rek lu ne moom yàlla jaam rek loolu moo gën a kawe xam nga nekk na nga abdullahi googu abodee boobu mhm. gis nga da koo ñaan ba tàyyi ba mhm. suñ borom may ko ko mhm. ci gàttal rek ngir tënk mu wax ne sammaytani qataan bi abdikal xadim leeral na ko sax minanul baqir rahman na xasida gum tudde minanul baqir rahman nga xam ne da ci sarxu dégg nga way yim tudde ismatu subbaan da ko cay way waaye wax na ca ne yàlla da ko def defal tawfiq mu sax ci bëgg yàlla di ko jaamu di ko xeeñtu di ko liggéeyal di ko sant bu mujj nag suñu borom jàppee ko muy abdullahi wa xadimu rasul yi waaye nag li lay xamal ne loolu maanaam mooy li neex sëriñ bi mooy mooy yàlla jàppe ko muy ab jaamam mel ni daal su ma la déggee eh. bi moom daa xam ne daa daa xam ne am na boroom waaw te boromam boobu it yëgal na ko ne maay sa boroom waaw mu daal ne man daal eh. lépp lu ma mën a def ba sama borom nangul ma ne ab jaamam laa. Hmm. loolee ci laay ne. amul sikk. daal di xool yi nga xam ne it mooy bunt yi ngay wax. Abdul Razak Abdul Gafuur ak yooyu. mu ne yii sax su ma ci jëkkee. day mel ni daa am lu ma bëgg ci moom man moom rek laa bëgg. waaw kon naa ko jaamu bu mu yëg nii. ab jaamam laa ak itam maanaam maanaam maanaam bànneex bi ne ci. Hmm. yëg yàlla. Hmm. xam nga am na ñoo xam ne mun maanaam tey yow sëñ bu mag bi nga xam nun niñ ko bëggee. tay boko ko hmm yàlla defal tawfiq nga man ko liggéeyal xidma bobé nga koy liggéeyal lu metti metti doo ko yëg ngir tiofel gi tiofel googu nak mo ne ci moy abodiye bi nga xamne mom la mom la don yek nga xamne fi ne tay ci misaal seereloo la nako ñep ne loolu lu yemu la man lay gis leeg mu ne mu seereloo ko sun borom washhad li yal yawma bi kawni abdaka khadimahu nak mako ko way waaye mu ne ya jumlatul xalqi min def yëpp ishhadu lii yawma fiihi yaxuusul mujrimuuna lawma bi kawni yaddaarayni abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi bindeef yëpp maa ngi sàkku ngeen seeral ma ne man kat mhm. jaamu bi yàlla la bu liggéeyal jaamu bi yàlla boobee di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muhibba kulli muslimin wa muslima mhm. mubghida kulli mujrimin wa mujrima mhm. katabahu ahmadul salaat لالك مو سيارة لو كان نصراني إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك مضطرا تيقنوا بأنني لله عبد خديم لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤي من كل من بالكفر زور تجرؤي نصراني ما عندي تسين سوف تسين بير فاي ما عندي لين دي خمال نكت نعين ما سيارة نمان كت نعين خم بوير نمان كت جاو بيالا لا بوي ديجير يونتبي الله عليه وسلم بودين تلو تلو تلو wala muy ñimee weddi suñu borom tabaraka wa taala waaye léeg-léeg mu seerale ko sax géej gi ba mu nekkee foofee ca maayom ba gis nañ mu mu jàkkaarlu géej gi wax ne li yashhad bi kaw nii abda man yaghfiru damba wa kaw nii xadimal mustafa baxra maayom ba maanaam yow ba géej gi nag ma seeral ne man kat jaamu bi yàlla laa tàmbal nag di dénk géej gi nag ne ko yow it na nga nekk ci loolu ayaa baxru waxit laa tusallis fa rabbuna taala an taslisi akrim bihi rabba maanaam géej gi yow na nga wéetal suñu borom bul topp gaa yi ci li ñuy wax gannaaw bi ñu waxee ci tawxid bi ak ci sëriñ bi jëf gi mu ko daa jëfe ci mboolem ay yëngatoom ak i cëram ak i jëfam ni mu ko daa feeñalee ci xolam bëgg gi bëgg sunu borom tabaaraka wa taala nangul ko ne ab jaamam la mm-hmm. ak mbooleem ni mu ko daan jëfee ak di ko di ko di ko feeñalee ci bindam ngir rekk benn intérêt bi mu am muy sunu borom tabaaraka wa taala nangul ko ne ab jaamam ga loola nag ku ci yàgg faw dara fekk la ci waaw ku yàgg ci tawxiid yàgg koo jëfe ci say cër yàgg koo bëgg ci sa xol nga xam ne sa mbébét sa yéene mooy sunu boroom nangul la ne ab jaamam loolu kat yaakaar naa ne sunu boroom faw rek mu am lu mu feeñal digganteem ak jaamam boobu jërëjëf sëñ Murit mm-hmm. jërëjëf mm-hmm. Eh, ni nga ko waxee sunu boroom tabaaraka wa taala mm-hmm. moo mas di nekk di yittee sëriñ bi sëriñ bi moom mësula nangu ko jàppe lenn lu may jaamu bi yàlla buy buy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na raqiib ak atiid malayka yi bind jaam jëfi jaam ñi loolu rek lañ may bindal inni ya abdullahi jalla wa xadim lil mustafa alladi atilaauhu yaduum yashhadu lii bida raqibun wa atiid fi kulli yawmin inda dil arsil majid wax na darajaam ji gën a kawe mooy nekk di abdullahi wa rasulihi darajati kawniya abdullahi xadima abdihi ibni abdillahi di jëm jo xamni tam euh ubudiya boobu yi mu don doon dox mhm. mu doon dundu mhm. li ko gëna mëna misal moy mhm. ñaan yi mu doon ñaan sun borom bu waxtu amon bañ ñew ci ñaan di gam ak sëriñ bi da nga gis ne ñaan gu and ak nongul yalla la ak toroxlu ak bëgg yalla ak nga xamne ñaan defu ko ngir sakku sax dara wala ngir dara way da ko def ngir ubudiya dafa bok ci jaamu yalla ñaan ak jaamu yalla la ñaaral betam ci biir ñaan nak ci la ubudiyam di feeñe deug deug deug deug deug mhm. dina koy misal lu bari ci ak euh, matlabul al asna mhm. nga xamne tay da ngay gis muy wax na ya sayyidi manan mhm. euh, lolu man nañ ne moy munajat manan jefam luñ wax duaa am luñ wax munajat di gogi nak itam dafa bokkon ci li nga xamne mom da ko farataaloon mom mm. señ bi mom daana fanan guddii bu guddii ga jeex di déyaale ak sun borom tabaraka wa taala señ Modou xari señ Modou xari Sil mm-hmm. nekkoon ci eh, ñi jege señ bi ci kër ga mm-hmm. wax na ne gis na señ bi julli ge talal loxom di ja di ñaan di déyaale ak sun borom ba fajar jot sallu wex tal waye mm-hmm. waaye dañuy gis you yoy yu yu yu fees ak ubudiyal ak ubudatu مطلب المقر الأسنى بما وقت لك يعني وقتنا يا سيدي أنا الفقير الفاني وإنني العبد الحقير الجاني أنا اللئيم البائس المسكين أنا الضعيف الجاهل المدين أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم أنا الأكول وأنا البطال وإنني النائم والقوال وإنني الحريص ذو التفات نقول لك توبي دي واخرك معنا ñàkk gis dara ci boppam mhm. nangul yàlla nga xam ne yàlla la gis ne mooy lépp moom nag jaam la bu doyadi bu néew doole mhm. bu aaja ndimbal nga xam toroxlu googu loolu mooy mooy mooy mooy li ñuy wax ubudiya dëgg-dëgg loolu nag moo fees mbindam mhm. nga xam ne léppam da ko jox suñu borom tabaaraka wa taala euh, ci misaal tuub diggam ak tuub boo ci duggoon da ngay gisaat itam ubudiya gu kawe gum doon dund nga moom قصيدي جيغولي قصيدي ييمولا سي جيغولو فقلت ذا توبه تحفه الاواه فقلت ذا توبه لله من ندم استغفر الله مجري الفلك في الظلم على عباب من التيار ملتطم جسمي ضعيف لاسقام تحل به وبان ذري وقلبي غير منتبه فقلت مستغفرا فتنة لكتب كادت ترين على قلب الذنوب وعن خوف ونور الهدى عاقته كل زمن فقلت طالب غفران الغفور إذا أستغفر الله غفار الذنوب لمن بالانكسار أتى والذل والندم maanaam waxi ni jégglu yoo xam ni ak toroxlul suñu borom yoo xam ni yu yéemu la ci ubadiya kon ubadiya mooy yëg-yëgi xol yooyu day daa feeñ te fees dell ci ci ci ci waxam Euh, nga xam ne léeg-léeg sax mu wax lu ñuy wax dullul ubudiyya mm-hmm. maanaam torox tàngal mm-hmm. ak ak ak ak doye dik mm-hmm. ak njaam maanaam torox tànge ak njaam ak yëg-yëgi maanaam euh, ñàkk yëg dara ci sa ak woyof fi kanam ki nga bëgg loolu dafa am bànneex bu ci ne bu ñuy wax dullul ubudiyya loolu nag la wax ne dulliya lil fardi alladi lam yalidi walaysa mawludan ata ba xaladi wakkiirlu itam gi mu wakkiil woon suñu borom lépp mu bàyyee koog suñu borom nga xam ne moom dana wax sax ne man sama mbiri bopp moom du ma ci am ak jañ akuk ñoddi lépp lu ma suñu borom defal rek gërëm naa ko la shakka anna kullama adxaltani fiihi fa xayrun liya yaadal minani lépp loo ma dugal rek lu baax la ci man lépp loo ma génnet wala loo ma xañet moo gën ci man noonu la doon doxee bolé ko kitam tafwid moy fétalé leppum sun borom tabaaraku taala nga xane lahu ufawidu amri haahuna wa ghadan bolé ko kitam doylo sun borom nga xane dewul jàmbat kenen man len daw ko jàmbat kenn kumay sun borom tabaaraku taala inni ila nafi'il lwahabi muftaqirun walam akun li siwal mughni bi muftaqiri astakid durra lil maxluqi mujtadiyan dawul talab loxom bi jëmee ci kenn ku may suñu borom mm-hmm. noonu la meloon ci li ñu ubóodi ubóodatu itam maanaam gërëm loo suñu borom mm-hmm. gërëm ko itam sax itam ci loo xam ne mooy gërëm loo suñu borom tabaaraka wa taala euh, nekk noonu itam la saxoon ci dëgmal suñu borom ak dox wuti ko fi ne aqbaltu da nga koy gis mu bari lool ci ak wajjahtu mm-hmm. wajhi koy gis mu bari lool ci biir ci biir biir xasida yi nga xam ne suñu borom rek la dëgmal dox bi itam nee na fenn rek la jëm bi muy dem ci géej gi tubaab yi japp dañ ko japp di wax ne asiru ila alwahhabi jalla jalaluhu manam man sama dox ci sun borom la jëm asiru ila dil barri wal bahri abidan ولست الى الفجار عود اسير انا جيم ما موك سي كنين كوما يالا يالا رك موم فن فلا تي لا جيم اندك يتام ا مانام باي لي ني وخ تدبير تدبير موي لي جندير سا بوب لي جندير خيل مانام دا وخ سون بروم نكو مان ليپ لوما tànnal lijjantil ma ko mbir mu ne loo ma la ma ca defal rek moo ñu ma gënal moo neex tat bira bi tat biirika bi tat biirika lii waaw mm-hmm. waaw mi ngoog nga xam ne moom daa dañtalu woon ci mboolem luy kattan ak mm-hmm. pexe mm-hmm. fi ne loolu moo bari ci mindam nga xam ne xarajtu min tadbiri nafsiya liya ila alladi dabbartahu li ya rabbiya a dama génn ci sama tànn bopp ak sama lijjanti bopp jëm ci yow sa sa sab lijjanti noonu yi la meloon itam ci jox léppam suñu borom fi ne moom Sëñ Tuubaa mooy ko xam daa jàpp ne lépp yàllaa ko moom فين كليتي جعلتها لله وديعة لبم رك لالك ملمكو دي لم اي تشري بومك روح جيك نجابوت جيك دوم جيك بتي جاسو جي اك دوندو جيك روح جيك دينغا لله رب العالمين روحي وجسدي وجاد بالتسريح قلبك yëg-yëg yeeg làmmiñ weeg lisaaniya wal awsaalu abdan lahu bikum ana cër bi ana yi itam da ko daal lim benn wax na lépp suñ borom moo ko moom sama waxanteeg samam xel dégg nga samay xalaat samay xalaat yi toq ci xel mi yooyu yëpp maanaam maanaam delloo naa ko suñu borom jox ko ko addiye moo ko moom lépp ci man ay pas-pasam ay yéeneem lahu dëhra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukli noonu la ko tam xalima yeeg jaamu yàlla geeg farata yeeg naafila yeeg lépp lu ci mën naa ci indi ay textes yoo xam day wane da koy delloo ci suñu borom ñàkk ki nga xam ne moom la moom la ak dem beeg dikk bi mhm. itam lahu dhahabi wa wo ruju'i mhm. nga xam ne léppam da koo delloo ci suñu borom ak mhm. yëngoom ak dalam waaw euh, mooy jëmm joo xam ne itam fi mu ne mësta sàkku ci kenn lenn lu ma yàlla loolu da ko jaayante woon moom waaw mësta ci kenn lenn kenn ku may yàlla mosut a sàkku ci moom. ne li ko jotuloon Touba bi loolu la am na loo xam ne bu ko sàkkoon mosoon na yàgg na bëgg ñëw ci dëkk bi Touba. Mhm. bi mu nekkee njëreem gi waaye lenn rek moo teewoon mu mën fee ñëw mooy nanguut a sàkku ci Touba bi ne damaa a dem Touba. Mhm. te Touba bi fii ak sàkku ko duñ ko may ci livre lettre euh, téere Ba bi. Mhm. mu génne lettre boo xam borom daal moo ti moo ko signé. ak sëñ Massamba. ak señ eh, señ ak ñu eh, bari ci mag ñi yaakar na tudd nañ ci borom daru sax waaw ah, borom daru mo ma nga ca mm-hmm. ak ma Masamba maam si Anta yaakaar na ma nga ca ak señ afé ak señ afé nga xam di sakku sakul eh, sëriñ bi ngir ñu may ko mu ñew Touba te ñom ñu garanté ko seen ah garanté ko waaw mi ngok te lol bobu gis nga Touba bi nangu mm-hmm. ci misal ma jox la misal mu gëna leer moy dëkk yi ni gis nga dëkk yépp Touba manam dëkk suñu borom la mm-hmm. Touba moom am rew la moy moy li boole dëkk yépp waye gis nga mas na koo delloo ci suñu borom ndax garab la gu nekk ci àjjana mm-hmm. waaye gis nga dëkk yim fi sanc yëpp daarul quddus mm-hmm. daarul alim al xabir mm-hmm. daarul mu'ti daarul mannaan daarul minan daarul rahman daarul karim daarul qadim nga xam ne dëkk yëpp da koy delloo kër yi suñu borom la kër yàlla la nga xam ne yàllaa ko moom lépp da ko daa suñu borom fi ne li ko yàlla taw féexal ci ay mbir yu bare bari la tey ci misaal moom ci dundam mësula def lu nakar yàlla mësula jege li wax lu haram ba lu sip dédét waye waaye day wax ne suñ borom momako ma muñ loo sabartani anil harami qablu wa fitnatun naasi mahad wal qablu sabartani an kulli makruhin lada kawni ghariban wa atabta al khalada non la koy topé nga xam wax ne lépp suñ borom moma ci dimbali bo man ko nga xam ne itam fi ne xam-xam bi mu am moo na damaa jàng waaye day xam ne suñu borom moo ma ko xamal fiqhu malik bi mu bi mu am ak ak ak yeneen ngir yi ni mu ko xereñee yëpp gis nga day wax ne war rastani fiqa abi xanifa noonu la koy toppee dañu bañ mu gudd làkku arab yi itam gis nga allama ni naxwa maa al xaru maa al arudi man qaada lil adama fii xaridi maanaam suñu borom moo ko xamal nga xam ne lépp da koy delloowaat ci jëmmi suñu borom tabaraka wa taala ba ci mucc gi mucc ak jéem gi muy jéem a teete murid yi ngir ñu mucc najaati wa in jaa mhm. wa xawsi istiqaamatan uxaawiluha billaahi waaw ah, mi nga xam lépp ci suñu borom mhm. la koy delloo kon mhm. kooku wàllug maanaam ba pare nag fàddu nag ci sun maanaam jeex nag ci sun borom nga xam ne ribtu anil akwaani fil mukawwini ak daa bàyyi lépp fàddu wëlis leneen lu may sun borom tabaraka wa taala nga xam ne ma nangu sax gis mhm. keneen ku may suñ borom mhm. huwa alladi lam ara gayrahu wala mhm. arahu fi cheyin mbir mu ne yàlla la cay bàyyi xel moom la cay jëflanteel moom la cay dàkk moom la cay xool moom la cay gis moom la du moom la cay jëflanteel itam mbir mu ne kon kooku bu ñëwoon ci bëgg su bëgg bëgg suñu borom moom kooku moom moom ak waxtaan te mooy moom yàlla da ko mooñaale ak bëgg suñu borom sëñ Basiru nee na mhm. ci njëlbeen nga ba mu nekk li ñuy wax tuut tànk mhm. fuñ mas a dem mhm. wut na ruqus boobam joo xam dafay dafay beru di jaamu yàlla ndax dafa feeñ rek yalla eh, eh, sànni ci xolam leer gu bëgg yàlla nga xam ne moom mësta bëgg leneen lu may yàlla subhaanahu wa taala ñaan na ba tey suñu borom maanaam sotti cofeelam ci xolam loolu bari na ci mbindam Euh, wax ne sax mooy diineem diiniya mhm. diiniya xubbu man ilayna ahmada arsala xaamidan alayhi mhm. Mhm. sarmadan maanaam nga xam ne wax ne diineem mooy bëgg yàlla subhanahu wa taala rabbal alamin maanaam bu ne ba may ko cofeel googi gis nga fësal ko wax ne maanaam rabbal alamin ah, léeg sax mu giñ yaminu rabbiya inna rabbiya ahab lii min siwaahu wan na bi mhm. baxdul ahab mhm. nga xam ne nga ci njëlbéen nga ba nga xamee ne waa Kajoor mhm. dajaloo nañ bëggoon ko booleeg buur bi gis nga lam leen tontu xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa tuxni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi yàlla doy na ma doyloo naa ko te boobu adduna ak di ci lañ ko doon woo jëm ah, xéewali gis nga maanaam eh, ba nga xamee ne sëñ Mamour Anda Sële ngi fii itam am na jamono ñu jàppe ko ku koo xam ni xel mi neexut mhm. waaye gis nga boobu dafa wax ne qaalu safihun li sarfi anhumu basari bayit ba ci doon wax ne xaalu safihun li xobbi xaaliqi mhm. maliki mhm. bëgg gi ma bëgg yàlla <laughs> rek moo tax maanaam ñu jàppe ma waaw mi ngoog ma ngoog kon yàlla moom moo mas di ak bëggam wax na ne huwa muraadi laa uridu gayrahu maanaam moom rek laa bëgg moom rek laay dàkk awma leneen lu may bëggaat لا سام مجين كوني مكوا آية. والله إني يخل للإله به حب له دون كسب آه، فيه أجزاه من دال سيني أحمد yeah. دام إني لينجا يوخ yeah. داي أم لمو لمو مثال تي سما خول yeah. ممل نيما عند دور جن دق لينجا يوخ ci ni ma ko déggee rek ci nu gën a simple loo xam ne dama bëgg kenn ku ne bàyyi ci xel mooy ci njëlbeen borom bi tabaaraka wa taala nga ñu présenté. boroomu sëriñ bi. mi nga xam ne moo sàkk lu dul moom lu dul yàlla rek jëfi yàlla. Eh, yàlla moo mii nag. Hmm. ci uluhiya hmm. ci rububiya hmm. ak ci sifaat yeeg asmaa yi. lépp mu mel ni sëriñ bi ku dellu it ci téere boobu nga xam ne moom la sa wayjur yu bàyyi woon fi te nga génnee ko àddina sépp jot ko njëlbeenu téere bi li muy jàngale mooy sëñ bi bi mu jógee hmm. doon jaamu bi yàlla rek la bëgg hmm. te mooy lii ngay feeñal jógtee tawxiid hmm. ci xam ko ak jëfe ko ak mu nekk ci biir xolam ak mu mu bëggit boroomam boobu yëg ne kat jaamam bii mi ngi koy jëfe xam na ko te bëgg na ko ko nangul <laughs> waaye borom bi daa mel ni ci biir téere bii eh, dem na ba yàgg mu sëñ Tuubaa di bind na yàlla nangul na ko ne ab jaamam la <laughs> waaye nag daa mel ni ni nga ko misaalee ni ni ma la koy waxee day mel ni ca olohiya ba mu fëggee ci <laughs> allah ba yàlla nangul ko ne yaay abdullahi sunu borom mooy rahmaan foofu sëñ bi daa dem fëgg ko fa mu mel ni tey bayit yi am rahmaan ku ko indi woon mhm. danga xam ne sëñ amul morom amul sikk amul sikk rahim noonu mhm. malik noonu quddus noonu ba bu agsee ci tuub gi ngay feeñal mhm. ni mu mel ni koo xam ne daa def suñ borom lu mu ko warta def déedéet daa xam ne aji jéggalaakoon la te mooy Abdullahi faw mu won ko ne maa dàq tuub ñépp amul sikk moo dàq ñaan ñëpp ci buntu yëpp ba ci ba ba noppi hmm. nga yëg ci lii ngay wax ni hmm. borom boo sañ naa jëfandikoo ab jaamam nu mu ko neexee hmm. saa bu ko tegee nattu mu sant ndax day xam ne ci boromam la jóge saa boo xamante ni wërsëgal na ko te jàpp na ne moom boromam dara waru ko ci moom cant ya day gën a kawe waaye moom daa mel ni njaam gi nib jaam di xeeboo di suufeek loolu daa war a naqari xam nga ci bu dee nit normal. Ah, waaye ah, moom nag. Ah, loola daa neex ci moom. toroxlul sab soppe loolu daa toroxlu ci loolu loolu loolu mooy bànneex foofu la yem. loolu boo ko seetee ci <laughs> diggam ak boromam tay daa mel ni ku saroon nag. Mhm. day mel day daal di wane ne loolukat kat lépp a waral mu sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. amul ci kaw tàmbalee ko ci bu koy tudd. tudd mhm. ne kooka kat mooy jaamu yàlla bu mag bi. Mhm. moo tax ma sopp ko. waaye gis nga sëñ bi lii. boo ko bindee boo bindoon Allahu. bind sëñ bi bayit yi muy bind di tudd Allahu. kenn xam bind Rahman. ba mu àgg. kon lii dana doon lu kéemaane kéemaane kéemaane ndax buntu bu ci nekk rek. sëñ Touba jaamu na ci boromam loo xam ne kenn musu ko caa jaam moo tax moo tax moo tax xam naa lépp du ci xaj waaye sëñ Tuubaa moom moom ku ku ku jeexoon ci bëgg suñu borom la kii bi nag am na ci ci sëñ amul sikk ku foofu lan daane ne waaye ma ma wax ne sëñ Basiru wax na ne mhm. am na tubaab boo xam ne bi ñi nekkoon fii ci njaareem mhm. am na ku mas a am jafe-jafe mhm. ñëw di ko wax sëñ bi di ko sàkku ndimbal di ci dig nak ne ko bama defé dina fexa ba ñu woyofal mm. la ki ci France nanga mu ne ko dal yow mm-hmm. fekkee da nga am yitte mm. sàkk ko luñ ci man ñu jappalé la ko man bu jéma xam sama ndax man jenn yitte la ma sa am muy muy sunu borom tabaraku taala mom rek la ma sa bëgg la ma mas di wut musuma mm-hmm. am jenen yitte mm-hmm. ba ni nga may gisé ni te fi ne nii nag am ci lu doy sëkk ya, motax tax sunu borom it maanaam bëggim ko bëgg jeexal leppam ci mom bëgg itam lepp lu ci mom ndax ko bëgg motax mu bëgg dégg nga alquranul karim mm-hmm. li wajihil karimi ahbabtul kitab bëgg mu bëgg suñu borom mm-hmm. moo tax mu bëgg diine ji mm-hmm. ndax diine ji diine suñu boroma inna diina inda allahi lislaam bëgg mu bëgg suñu borom moo moo tax mu bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax ndaxul ndawul suñu borom la tabaraka wa taala bëgg mu bëgg suñu borom moo taxoon mu bëgg jàkka yi Sëñ Tuubaa bërëb bu mas rek tabax na fa jàkk dégg eh, waaye sunu borom it. Mhm. nim kawan ko waxe won rek. kep mhm. ko xamni ni wuti ko. Mhm. mu gatandu la. gatandu man atani yamsi ataytuhu xër walatan tan. gi. gatal gi moy da koo xëccal boppam. sunu borom da koo xëcc. Ah, ñaan na batay ati aati ka aati nii ngi lay wutsi wutsi ma <laughs> <laughs> wax na sunu borom lool way sunu borom it. de nga daal di koy xeccel bopam bam ko xecce itam. yemu ci. da ko jegeeñeel boobam dégg nga ba mu àgg ca moom waaye niñ koy misaale waxtu yi du ko maye buur bu sell boobee bërëb bu sell boobee ña fay dox wuti ñu néew lañ ñu bari dañuy yem rek ci xam ne yàlla am na waaye duñ dox wuti ko ñay doxit ñu bari ci yoon wi lañu ñuy yem ndax yoon wi daa bari pak mhm. ak i gàkk-gàkk ak itam ay kii ay xéewal sax yu mën a tëral am na ñoo xam ne buñu demee ba jub bërëb ba xéewal ya yañ gis ak zarte yaa xéewal yi dañ naa fii la ñuy yem ndax mun mhm. dal ban son son nan am na ñoo xam nag duñ yem ci loolu mhm. sëñ bi nag nee na man àgg naa ilaa ilaahillaahi qad wasaltu dégg nga wa waxan rasulillahi man fasaltu maanaam àggale na ma ba ma àgg ci moom waaye man nga àgg itam ba ca ba ca ba ca ba ca dëkk ba ba ca bërëb ba ba ca xadra ba te doo dugg. Mhm. dégg mhm. waaye nee na man dama jëlee ca fa ma nekkoon. Mhm. jege dugal ma ci biir kër gi. mooy li ma wax ne nazaani min al baraya samadu. maa tapp ma féet jegeñal ma boppam itam. aawaaniyal muxni ilayhi bi karam. nga xam ne suñu borom da koo jegeñal boom waaye fi ne mën a laa mhm. dugal ci biir kër gi te doo dajeeg moom mhm. doo dajeeg moom sax mhm. mu war laa bëgg neeg waaye nee na man daa dajeeg man laqiyani alhayyu alladi laysa yamuut daa dajeeg man <laughs> xam nga loolu it tawfeex la waaye man ngaa dajeeg moom it fi ne te doo janloog taaram bu sell boobee mhm. xar kanamam ba mhm. ci misaal rek mhm. walillahi almasalul aala waaye nee na man dama da da waajahtu rabbi wa rabbi waajaha kulliyati mahabbatan lii haajaha damaa jaa janloog sama jëmm ji lépp jëmmam janloog sama jëmm may may janloog taaram bu sell ba ci lépp waaye man nga dugg ci biir kër gi jandoog moom loolu lépp mën a am te du féeteeg yow waaye nee na man daa féeteeg man itam nee na wala niyallahul karimul baaqi yemut ci fii teg ma ne waaye nee na xam nga mën ngaa dajeeg buur bi lépp nag ci misaal lañ jublu rek walillahi almasul aala waaye mm-hmm. mën ngaa dajeeg buur bi te du wax yow mm-hmm. waaye nee na man daa wax ak man kallama ni taklima di ixfaay <laughs> fuqtu si waaye bi xitaabil baaqi loolu it ba tey am na maxanaa mu mu mën a dégg ci ci mm-hmm. ci ci ci ci ci ci ci charia ak ci alxuraan yëpp am na ci maxanaa mu leer ndax lépp mën naa amee ci alxuraan ci ci alxuraan loolu la ko sëñ bi wax sax naajaani akramu bi dikrihi ci alxuraan nee na la déyaaleeg man waaye ci misaal rek wax yéen ni cofeel ak mahabba hmm. dañuy gis ne buur bi nga xam ne moom la doon dox di jëm hmm. dégg nga xëccal na ko boobam hmm. sësal sësal na ko ci boobam ba mu demee itam yaatal na ko wax naa ak moom dégg nga bëggal na ko boobam itam feeñalal na ko itam ne man ku la bëgg laa ànd ak loolu itam eh, yéemut ci loolu lépp ndax mën a loolu lépp mën naa am te du la gërëm waaye neen damaa gërëm ngërëm lu rëy yëmul ci loolu itam damaa nekkal itam ba ñëpp xam ko yëmul ci loolu itam damaa tërbiyaal boppam def ma may ab dëkkaa ma dëkkaale moom mu boyal ma itam boyal ma ci lépp ci ci ci ma nekk jaam bu sell hmm. boo xam ni wa inni lahu abdun wali waaw waaw hmm. koy misaal itam ci hmm. géej gi xam nga sëñ bi léeg moom ci moom da koy misaal wax ne mar ñëw ci géej gi xëy na foofu la ñu damaa mar nee na ñëw ci géej gi zamitu wajitul baxra dégg nga fil baxri xaadima damaa mar ñëw ci géej gi ma ñëwee sama yitte mooy raajiyan saqiyahu ñu mhm. jox ma ci ndox mi ma naan waaye yàlla dogal nee na mhm. ñu dem ba mu yàgg mhm. ñu tàmbali di ko jox ci kaas yi sharibtu min miyaahi nuurillahi xam nga ne di ko masal ci ndox mi léeg mu nga dégg mu ne la eh, saqaanii bi kësil qawmi man na waral xijaa jox na ma kaas waaye léeg mu ne kaas yu bari lañ ma jox noonu ku oosuka tasqiini biha léeg-léeg itam xadaraat yi ko jox day wute léeg-léeg mu ne saqaaniyal baaqi min miyaahi موي تور على ميخ باقي حضره لالك من سقان يا المغني saqaan qadmaha léeg-léeg mu ne saqaani ilahi saqiya baaqin musaxihin léeg-léeg mu ne saqaani ilaahi saqiya mugnin saqaaniya rahmaanu bi shakuri waaye léeg-léeg mu ne saqaaniya allaahu may allaahu moo koy jox maanaam géej gi daa bëri xam nga léeg-léeg itam kita wax suñu borom sax ne ko farm. dama bëgg nga far ma nag maanaam léeg borom ne ko mën nga dëttam ci géej gi nga dama far bëgg nga ci sama biir rek may yi naan fajir yanaa bi mu ngoog muy dem loolu mën na ci lu bëree bëri ko ñu ko defee suñ ba di ko suñ borom defee nag muy ak géej nag mm-hmm. waaw Cheikh Mouhamadou Lamine kenn ci naari gànnaar yi wax na ne mm-hmm. euh, qataatu ilayka al bahra mm-hmm. wal bahru anta damaa jaar ci géej gi di la wër si waaye naka te yaay géej gi mm. <laughs> moom day waxtu wi tënk nanu euh. waaye yaakaar naa ne baat bi Serigne Mountakha waxoon ne mm. sunu borom mooy ki nga xam ne dara tëwu ko waaye sëriñ bi day suñ borom jombalewu ko dara ci boppam. amul sëkk man mi ngi may door a leer tey. alhamdulilah maa ngi koy door a xamee noo xam ne. xamin wu ñu saraawu yaatoo yaatoo. alhamdulilah alhamdulilah te li nga ci wax day na ma ne e, doy na sëkk ab yóbbal fii ak màggal. loolu nag mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon ci diggante borom Touba ak boromam tabaaraka wa taala ñu ngi leen di sant bu baax di leen jéggalu xam naa ne dagg gi waxtaan gi moom dana métti ci téléspectateurs yëpp. waaye nag moom wax wi ñu cërale woon dafa jeex kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen kalpe orange money moo fi gën a yomb soo yónnee 10 000 francs CFA